responsabilité bu rëy rëy Ameth nekkit ci région de Dakar ku wax Ndakaaru li ëpp ci yëfi yëngu-yënguy réew maa ngi fi kon muy xew-xew bu am importance boo ko doon tey xool tey ci agenda nangamu Sénégal bokk na ci xew-xew faar yi ne ci réew mi loolu nag ak contexte bi ak fi jamono toll mu am nag beneen taxawaay bu xamante ni xëj na war na ci nguur gi mais war na ci ñun ñi kon war nañoo mën a coordonner suñu action ba lépp lu nga xamante ni macha allahu ñaan nañu yàlla yàlla rek a mën a matale nag ñun mënuñu lenn waaye sañ nanoo jóg dox ñaan jàppalante téyante ba li ñu namm ci xew-xew bi mu lii nag yàlla daf noo def at mu jot bokk na ci lu nga xamante ni dañ koy partager ak réew mi moo waral communauté bi at mu jot ñu wutal thème central xew mi te dafa am lu ñuy invité toujours mooy ni ki nga ni moo la woo mais lu mu la jox woote ngir woote taxul luy wax mais contenu risalaam message am mission foofu la affaire bi ne donc ñun wowlu nit ñi pour rek di yéeg ak a wàcc di dem ak ñëw ak xee fee la diw jaar fee la dem fee la dem kooku loolu taxoon a jóg li nga taxoon a jóg mooy lim fi andi lim fi andi ci kan la jóge ci yàlla rek jógewul ci Seydina jógewul ci kenn parce que loolaat ba fi ñu tollu kenn mënu ko dindi kenn kon nag ah moom it di Seydina Limaamu li ko ñor mooy nu jubóog yàlla du leneen looloo waral li nga gàllankoor yi àdduna te nit ñi am ko ci àdduna mu teggeel ko boppam xam ngeen ni àdduna teggantey mbagg maa la ëpp lii maa la gën lii maa la maa la moo fi masa am moo fi masa nekk moom mu ñëw rek jël laa ilaha illa allah te ca innam akramakum indallahi atqakum loolu mooy ci gàttal fii kër gi yàlla rekk fi saf leneen loo fi yor te du yàlla da ngay soof ak moom kon yàlla rek moo am solo ci fiite te dañoo gëm ne nag yàlla rek am solo nag ci àdduna nag kon bu ñu ñëwee jël ak thème ñoom ñii daan ci ñëw le rôle de l'éducation dans la lutte contre l'extrémisme muy ñaari pàcc yu doy waar éducation mu nga ci biir ku ni éducation dafa am ñaar kii woote woote bi dafa am lu wax inna haza waliduna ñu ni lan mu ni lam yu addib naa ñu ni lan mu ni walam yu allim naa muy ñaari wax yarunu addabani rabbi fa ahsana tahdibi la yonente bi wax sunu waajur a ngi te loola ba ka bàyyi laay di wax dañuy lii dina xew bis penc ëllëg moy ci nit ñàkk yar yar nag moom am na usikum bil iyaali la wax ma ngi leen di denku njabot ci bir denku njabot bobu ci la presque boy xol li ñi tuddé droit de l'enfant di nga ko ca gis di nga ko ca gis yelle yi dañ ko ci gis jigen ñi am nañ ci place lépp tay ji les droits humains yi ñi wax yëpp sëy naa limaam combar li ñuy tuddé développement durable rombal na li ñuy tuddee euh, développement humain dugg na ci donc kon jamono war naa weesu diw mooy moom ak du moom tardeel nu la fu ñu toll foofu la wax ji ndax kooku la mu wax ñun ñu koy wuyoo niru nañu ko foofu la yëpp donc kon ku ni yar nag nun danoo wax ni diine nun sunu yar ñu ngi ko cofe ci alxuraan ak sunna al minhajul kaamil al minhajul rabbaani ñun foofu la ñuy yaroo donc alxuraan laabalee defar nit ci biir fóot nu delloonu comme na mu ko haa unal maa uwa ndox maa ngi saabu baa ngi kaay mu fóot leen fóotu biir a nuy wax lii nag bu ko nit ki amee te damay wax ni kalaay yar yare yaru moom xeet wu ne da ngay dégg gars yi naan al amnul xidaa yi la sécurité alimentaire mais gis nga xol ak xel dañ koy sécuriser gis nga lii këfe moo tax ñu ñëw ci yar parce que njom bi dafa am nit ki dem na ba génn niteem moo waral lii fi ne xëy dugg a jàkka taal rey ña ca des xool ci mbedd mi ku la neexul te du tee nga ni allahu akbar man qatala nafsan man qatala muminan mutaamidan fa jazaauhu jahannam la alquran wax ñàkk muñalante moo waral yëfi na yëpp yi kon ci gi gàttal mooy ni danoo waral nun nag fexee ñàkk sunuy ndaw

kër gi wax na ko ci ay thèmes xool leen sur la paix lañ doon tàmbalee ñëw bu ñu bi ñuy wax zakat boobu les inégalités moo tax ñu dugg ci waxuñu zakat pour zakat comme ni ko gars yi xewalee déedéet zakat toujours moo ko zakat du góom boo xam ne da nga koy raay raay dañu war a fexe éradiquer la pauvreté loo war a war a finalité bu zakat donc ñu ñëwaat fa ñëwul sur la bonne gouvernance

ba ci des nag xam ci la xam ku ne gis na l'islam li mu def ci xam ak xamle parce que yëpp xam ci la boo ñëwoon tey nga jël ci statistiques yi xool réew yi nga xamante ni tey boo ñoo bokk tey bokk ci biir aussi di ay jullit plus de soixante dix pour cent yàlla fay soixante dix yi dem te si jigéen ñi la gën a ëppee di nga xool te iqra jëkk wàcc ci alquran plus de 70 pour cent nga xool li gën a rey sunu fii mooy arab yo assulaasiyatul xatira al maradu wal jahlu wal ummiya analphabétisme maladie ak it euh, nu ñu koy waxeeti ak ak ak ak al jahl boo xoolee moo ci ëpp rawatina nag ci jigéen ñi wala ci àll donc loolu lépp pour ñu mën a nag combattre lii ñuy jëm nii

koo séqal affaire mënoo jàkkaarloo moom nekk ci nangam yi di wax wax ju ñaaw yooyu duñ ko mën a rafetlu mukk ci àdduna may attirer attention réew mi di leen wax ni kii dee Haaji Abdoulaye Thiaw Laye na ci ay maamam baayam sax dugg ci kër diine yi tuddante fi ay tur baayam Seydina Issa def na ko def na ko ci Tiwaawan def na ko ci Touba. Serigne Ablaye def na ko ci Tivaouane def na ko ci Touba def na ko ci feneen kon ñooñal lay cohésion sociale ci diine yi war a nàngam ñu ngi joué vraiment ci loo xamante ni dina mën a boole këri diine yi booloo këru diine yi nag ci biir Sénégal bokk na ci liy jàmmal réew mi kon tu doon fixé ci ku ma mën a doon moo xam Seydina la moo xam leneen la ak koo mën a doon foo tibb nit yëkkati mu gën a ñaawee sànni fa na la wóor ni saan woowu ci yow lay dellu si

et de dialogue entre toutes les composantes de la, euh, de, la société. Bon, afin de consolider les valeurs de paix, de justice et du vivre ensemble. À la lumière des principes fondamentaux qui s'articulent autour de trois points. un, L'unité de l'origine humaine. Ya inna min zakarin wa unsa, wa deux, le principe de la dignité humaine. Trois, le principe de miséricorde pour l'univers. dans ce contexte de mutation mondiale nous devons faire valoir le rôle de ces principes euh, et valeurs islamiques dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme donc nous nous ñu jëm message Nous la nous soxla nañu dal soxla nañu dal ci suñu soxla nañu dal ñi nga Sénégal quel que soit ak nu mu manti mel ak différence ñii di wax chinois ñii di wax francais ñii di làkk pulaar ñii di làkk loolu sunnatu la loolu la yàlla binde mais nag macha allahu lenn rek lañu war a mën na noo war a mën a partagé wu asamaan si ji ñu bindul mën a dox ci suuf sunu moomul mën a kañtu ngelaw loo xamante ni yàlla moom lépp te ku ci nekk xaj nga ci kon réew mi nañu ko xajoo nañu bëggante nañu téyante sunu message du message xalif général de la te dinaa ko répété waat wax ko ku mu manti doon ak fu mu manti jóge ak noo sant ak koo mu manti doon loo sànni ci sa kaw la jëm réew mi weesu na foofu réewum citoyenneté la bu ñu fi demee bis bu ñu demee ba dindi li ma wax sànq dindi yëf yi teg fi leneen ñun ñëpp perte nee naa leen njéeréer yi bi ñu duggee Sénégal toolu sëriñ ak taalu bi tool yëpp dañu lekkandoo njéeréer yi laa wax bi ñu duggee ci réew mi amul tool bu ñu épargné taalibe ba bu sëriñ bi ko ne lekk nañ seen mooy kasaalik bu ñëpp croiser les bras seetaan la société ku nekk ni naan ku nekk ni naan nu la neexee fu la neexee nu la nangamee ñu koy sànnante ñun ñëpp bu yàggee daanu bëgg a dajaloo mu tënk.